kon mbokk yi mbokk yi info 7 xibaar baa ngoog defe naa muy xibaar bu tiis boo xam ne al aalamul mooy monde islamique bi yeewoo na ko tey ci diggante président iraa bi ñu wax Ibrahim Raïchi xëyoon demoon foofa ci réewum Azerbaïdjan bay dëpp ili ko bam mu ré ba yéegoon daal moo ne mër ci jaww ja ba fii may waxee ak waa Iran joxe xibaar bu leer ndax nee nañu bërëb bi nga xam ne ci lañ mujjee xam dara ci hélico bi bërëb booba dafa xaw a am jafe-jafe internet ndax it tey Iran jaww ji dafa xaw a doy waar ci ay xeeti taw yu fa am ak itam jaww ji daal doy na ba tax na Iran daal ñoom ci seen jëm bopp euh, saxala guñu dàq guñu ki ñuy wax nag xali aamini nga xam ne moom mooy xalifa bu mag ba ndax ira day mel ni ñaari day am président ak kilifa gi kii nag mooy président bi moom la ilikoom bi waaye nag kilifa gu mag ga daal moom nee na euh, na seen xel dal mi jàmm na cee mujj waaye xel daal lu mën a xew américain nag nee nañu hélico bi daal dafa daanu te ñu wañ na seenu njàppale ci Iran Turquie ñu wane seenu njàppale ci Iran ci di leen gëstul seen iliko ba fan la war a mën a réer réewum imaraat noonu réewum Irak noonu réew mii di Israël nag ñoom ña ngay teel a wax ne ñoom seen yoon nekkul ci iliko bu daanu defuñu ko ñoom ña ngay wax loola waaye daal iliko bi Azerbaïdjan la bàyyi ko di delluwaat ci Iran booba daal la réer ne mër ci jaww ja ba fii ma wax yow daal IRA joxeeguñu xibaaru ndax kilifa gi génn àdduna moo ak ñi mu àndaloon ndax mi ngi ànd ak ministre l'extérieur bi ñu wax Xoseynu Abdu Lehyan moom la àndaloon ak beneen naataangoom bu ñuy wax Ayatullahi Alxaashim moom mi ngi nekkoon ci imam ci jamhatu Tabriz moom président IRA bii di Ibrahima Ar-Raisi mi ngi amoon juróom-benn fukki at ak ñett ministre de l'extérieur bi di mi ngi am juróom-benn fukki Eh, ayatullahi al ashim nag moo ci mag mi ngi am 73 ans kon daal xibaar baa ngoog di xibaar bu tiis dal ci suñ kaw mbokki jullit yii di waa Iran ah yal na ci jàmm mujj rek yal nañ leen gis ci jàmm ak salaam ñu bañ a am benn jafe-jafe waaye daal doy na waar daal doy na waar doy na waar lool doy na waar eh, doy na waar waaye ñu ngi koy toppandi daal ba xam la ci mujj Iran nag bo fi ma wax yow Iran saxala guñu saxala guñ dàqa guñu eh, kenn ci ñi nga xam ne sax moo doon bokk na ci ñi doon taxawu kii ba daal ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci hélico bi kenn mënu leen a jot ba léegi hélico mënuñ koo localiser ndax nee nan bërëb ba daal internet ba doxul euh, kon xibaar yaa ngi dina nañ ko toppal fii ak guddi gi lu ci xaru ñu baaxeloon ko.